alors tey jilee ci sud bi la ñuy dem ca bët Saalum ba fekk ji fa Lamine Ba notamment à Ziguinchor ak euh, benn fenn fu ñuy jàngee ak tur bi fan la jógee Lamine Ba maa ngi lay nuyu di la ziar fan la ñuy ànd ak yow tey. ñu ngi leen di euh, nuyu di leen gërëm di leen euh, dalal fii ci Ziguinchor te nag ci seen rubrique euh, de quoi est-il le nom xam ngeen ñu waxtaanee ki nga xam ne nag moo di Charles Lwanga nga xam ne moom sax boo seetloo am na école bu am doole bi nga xam ne mu ngi nekk fii Ziguinchor moom lañ ko tuddee mooy collège Saint Charles Lwanga te ngeen koy seen sama ginnaaw noonu donc tey. ñu fas yéene leen xamale ak ki nga xam ne mooy Charles Wanga waaye balaa loolee dañuy jéem a interroger quelques Ziguinchor waa laaj leen est-ce que xam nañ ñu euh, ki nga xam ne nag moo di euh, Charles Wanga ak lu tax ñu tuddee ko li nga xam ne nag moo di daara bu mag bi di collège Charles Wanga. Euh, sëñ bi wax ñu noo tudd ak noo sant. Ibrahima Sagna laa tudd. mais est-ce que yow mën nga ñu xam mën nga ñu wax lan nga xam ci Charles Wanga. tur bi nii laa ko fekkee mais mosuma gëstu pour ma xam kan lañ ko tuddee Charles ku tax ñu tuddee ko Sarlonga mais gësuma quoi waaw. franchement lu tax jéem xam rek non erreur rek rek daf ma daf ma échappé rek mu naa gëstu pour ma xam lu tax ñu tuddee ko noonu quoi. xamoo ndax tubaab la wala nit ku ñuul la yo yow amoo benn information ci moom. mais xam naa ne nit ku tubaab la quoi mais mais du nit ku ñuul quoi parce que Sarlonga nii xam naa ne du du du nit euh, fii su su kii si Casamance bi quoi xam kon dañuy seetiwaat keneen koo xam ne moom tamit atelier am mu ngi fii soriwul euh, Charlevanga ñu laaj moom lan la xam ci Charlevanga. waaw waaw man maa ngi tudd Serigne sant Diop. mais yow yaa ngi liggéey ci wetu école bi bës mu ne nga dégg Charlevanga mais yow xamoo ko Charlevanga. waaw parce ma ne la xam naa ko xawma ko. maa ngi dëkk fii jàkkaarloo ñoom. mais gëstu ma ko daal gëstu moom kan mooy Sarlonga mais toujours damay dégg turu Sarlonga école Sarlonga. jéemoo xam ndax tubaab la wala nit ku ñuul la wala ku baax la wala daal ni mu meloon amoo dara loo ci mën a aperçu amoo ci dara. parce que mos naa laaj nag euh, kan mooy Sarlonga ñu ne partenaire la waaw loolu moom jot naa ko ci xam daal. jërëjëf ñu ñu jël keneen ki koo xam ne moom dañ nañ ke laaj <laughs> ndax xam na nga euh, sëñ bi. Euh, wax ñu noo tudd ak noo sant. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Mamadou booj waaw dëkk fii nag Périsac fi yàgg naa fi depuis quatre-vingt-quinze ba léegi maa ngi fi. yaa ngi Périsac Périsac la école ba ne école ba Charles Wanga la tudd kuy Charles nga xam nga ko. non Charles Wanga nag wax dëgg yàlla xaw ma ko xam naa école bi nii mais ki ñu tuddee école bi moom xaw ma ko. kon ñoo ko déggandoo Charles Wanga euh, ñoom ku nekk wax na xalaat si. li nga xam ci Charles Wanga léegi dañuy dem ci biir seeti ki nga xam ne nag moo di proviseur bu collège Charles Wanga mu wax ñu kan mooy Charles Wanga balaa ñu dikkaat ak yéen. Moi c'est Abbé Marcel Cantoussan, proviseur du collège Saint-Charles le collège Saint-Charles Wanga dirige euh, depuis deux ans euh, comme proviseur a été créé en 1970, disons. Parce qu'à l'époque, avant Charles il n'y avait que le lycée Djignabo, qui était le seul lycée avec un internat où, qui accueille des jeunes. Alors, euh, l'ancien évêque, Monseigneur Augustin Sagna, alors, euh, a pensé qu'il fallait trouver un lycée pour accueillir des jeunes, des jeunes qui viennent des familles pauvres, parce qu'ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Elle a créé Charlonga. En rencontrant l'évêque de Saint-Hyacinthe au Canada, il a créé cette école en 1970 pour accueillir ces jeunes qui viennent des familles déshéritées, pauvres, des, des villages. Et c'est comme ça que ça la première année, c'était en mm-hmm. nous parler un peu de, de votre parrain qui était nous on parle de saint patron. Donc <laughs> saint Charles c'est un saint. Il est africain. C'est les martyrs de l'Ouganda <laughs> en Afrique. Alors ils ont été tués parce qu'il croit en Jésus-Christ. Et le roi de l'époque là-bas, qui était un roi païen, a voulu qu'ils renoncent à leur foi chrétienne. Et Saint Charlwanga était le chef de la Il avait 50 ans. Donc on les a tous tués, brûlés, au nom de leur foi, pour qu'ils renoncent à, à, la foi en Christ. Ils ont dit non. Donc euh, Saint Charlwanga porte <laughs> le nom de ce saint-là qui est mort, saint patron, Saint Charlwanga, et ses compagnons martyrs. Ils sont morts au nom de leur foi. Donc, voilà. vous avez voulu donner une référence au nom de euh, a donné, c'était le premier martyr africain. Donc il des martyrs européens à l'époque, mais en Afrique, c'était les premiers qui sont morts au nom de leur foi. catholique c'est ça. effectivement. dégg ngeen ko donc Charles Wanga bi ñu doon dégg Charles Wanga Charles Wanga donc dégg ngeen proviseur indi na ci li nga xam moo di ay ton wax na ki mu doon euh, mu doon euh, ab xam-xam ci li nga xam nag moo di. surtout li nga xam ne mooy taarixa euh, histoire chrétienté ci ci biir Afrique ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen. incha allah beneen yoon ci beneen numéro de quoi euh, est-il le merci beaucoup Lamine Ba Lamine Mandiang Khadim na malheureusement Mokhtar très rapidement tey jii tamit lay euh, bés euh, tey jii la faatu woon. c'est ça fàttaliku 3 juin 1886. il avait tout waaw te moom mi ngi woon ci cour. Euh, du roi bi la nekkoon nekk euh, ku téye les pages mhm. niñ ko tuddee woon mais yàlla dafa daf mu am la fois chrétienne ba mu ko amee nag amoon na sax ñu ko jege muy ses élèves euh, ba roi bi décidé parce que roi bi lu tax mu ni daleen di rey Mwanga parce que moom dafa jàpp ni ñoom ñi am la fois chrétienne moom dafa doon joxe ordre pour ñu fa nekk ñuy séyante góor ak góor ñoom Mwanga ni ñoom loolu du ci mës a nekk ba mu jëlee décision nag rey leen ci la euh, Charles Luanga am benn courage am ni moom du seeg mukk góor ak góor ba pare nag élèves ya fa nekkoon ni leen bu leen yeboo rek ma baptiser leen ngeen nekk ci foi chrétienne ngeen jàpp ko bu ñu reyee aussi muy noonu waaye ñun lii mu ñu sant duñ ko def hmm. ci la jël euh, ñoom ñëpp mu jël euh, Charles mm, disons Luanga hmm. daal di koy brûler vif hmm. devant ses élèves jëlaa jëlaale nag élèves yi également brûlé leen vif ci la nag euh, jamono di dox ba 1964. Mm-hmm. le pape waaw le pape euh, Paul Paul VI. Euh, daal di leen di canoniser église nangu liggéey boobu nga xam ni les martyrs de l'Ouganda dafoon nañ ko. Mm. te boo seetee école yu bëri ci Afrique. di porte seen nom.